naal tribunal mareyeur yu Sénégal di ñaawlu ñàkk taxawu état bi ak it euh, yàquteg euh, euh, quai de pêche ba fa jamono yi daal ñu ne dafa xaw a bari maanaam ay yàqu-yàqu da caa bari bu nu sañoon ak ak ñoŋalaat. ci technique bi Aliou Ba di may sa Mbaye ñu leen di jaajëfal ak yéen ñiy teewlu xibaaru 8h yeeg RFM syndicat autonome médecin pharmacien chirurgien dentiste yu Sénégal ñoo bëgg waxtaan di dialogue bi seen digg ak état bi daal di tàmbaliwaat bu sa sañoon daal yeexite gi nu ci nemmiku boobaak léegi ñeel négociation yi ñu daal di ca sóobuwaat waat mu daje ca Kaolack la ñu ko xamle ñaawlu it situation ba ca sami national faatu Mbow comité exécutif bu SAMES di xaarandi ba tey ab réponse bu mucc ayib ñimale ko ci seen wàllum revendication ngir gën a ñoŋal seen anam yu ñuy liggéeyee docteur Mamadou Demba Ndour nekk secrétaire général national di ñaawlu tekk tekkaarlu autorité étatique yi syndicat bi day ñaawlu doxalinu état du Sénégal depuis décembre 2023 ngay dem retraite la nga yoroon ci salaire yépp ne furaas ñu jox la pension bu ndaw boo xamante ne moom nga yore day poser moo tax ñun ñu jàpp ne gouvernement bi loolu da a wax lu leer nañ que santé bi ku ko xam-xam na ne i jafe-jafe bokk na ci wàllum tabaxum siège pour yi ak yeneen donc jot na tey ñu xam ne santé priorité la boo xam ne mënatul xaar ñu wooñu ci taabal bi ñu ñëw waxtaan li ñu war a mën a tënk ñu tënk ko ci protocole d'accord améliorer conditions yi mooy faj askan wi boobu ba léegi amaguñu siège ñu war ci sumb ak camarades yi waxtaanee ni ñuy dajalee ak liñ fay nar a def ba am fa siège bu mucc ayib SAMES di indi itamit njàppandalam ci waa SAMES wi yi nga xamante ne ñu ngi ci toogaanu ñaxtu jamono ji tax ba ñuy sàkk ci autorité ñu daal di àddu ci yooyu la jafe-jafe foofu mat na ay at suñu camarades yi fa ne ñu ngi ñaxtu ay conditions yo travail ñi fa toogal nguur gi dumuyu leen tànqaamu leen ñu ngi wax gouvernement bi nag sami importance bi mu am ci système bi dafa laaj jël dossier bi en main régler problème yi. diwaanu Kaolack nag daal di dalal réunion ñeel wàllum comité exécutif national bu SAMES bi nga xamante ne dañ koy faral di amal juróom benn weer bu nekk ngir gën a saytuwaat jafe-jafe yu secteur ñeel wàllum santé di jànkonteel. saa su nekk Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. jërëjëf soxna Fatou euh, payuk euh, bor bi nga xamante ni état Sénégal warloo woon na ko ak euh, producteur semencier yi tàmbali na fukki ak ñett ci milliards ci fukk ak juróom-ñeent yi ñu warloo woon ak ñoom fay nañ ko dig digalu deux mille vingt et un deux mille vingt nu génn la ñu fay fukk ñetti milliards ya ci fukk ak juróom-ñeent yi ñu warloo ak ñoom li ci des altine incha allah lañ leen koy fay maanaam altine tey jii ci ay leeral yu tukkee ci ministre bi ñu dénk mbay mi ak souveraineté alimentaire parlementaire monsieur le ministre Mabouba Diagne ñu teewlu ko ci jokkoom ci téléphone ak Boubacar Dieng. paiement yi nga xam ne ni certifié nañ leen depuis vendre euh, euh, montant total de dix neuf milliards la. pour les campagnes de deux mille vingt et un deux mille vingt deux et de deux mille vingt trois. treize milliards fayagum nañ ko ci vendredi bi passé. te su ngeen soxlaa euh, preuve yi sama service mun nañ leen jox preuve yi. lundi le treize mai bi dinañ fay li li des. dafa am. procédure boo xam ne moom la ñuy def pour vérifier ak confirmer facture yi comme ni ko premier ministre bi waxee. mais fay bi commencé nañ depuis depuis vendredi treize milliards fayagum nañ ko ci vendredi di ci des tey jii suba lañ koy fay après vérification de toutes les factures mm. confirmation. mu nekkoon euh, kon euh, leeral yu tukkee ci ministre bi ñu dénk mbay mi ma Mabouba Diagne jëm ci euh, koppar yi état bi warloog producteur semencier yi di ñuy yëngu ci wàllu mbayam jiw fukk ak ñetti milliards yoo xamante ni kon jox na leen ko maanaam mu des juróom-benn di milliards ci dañ ko fay ci altine tey jile leneen ci xibaar ak RFM ca commune bu Chérif Lo askan waay yëglu diwaanu Thiès la ne ay jàngoro yu ñu fa nemmeeku ca dara warulu ko ñu ne lu dul société yi fay yëngu ci wàllu exploitation minière ay jàngoro yi noyeek ba ci wàllu xol ak yeneen moo waral seen ak yëglu bu ñu sañoon daal kilifa yi euh, wut saafara ci Cheikh Anta Diop di ab dëkk bu nekk ci commune bu Chérif Lo dëkk bii de daanaka ay carrière ko wër askan wi yeewoo fii nee nañu sonal nañ leen lool ci bruit machine yi ak poussière bii xër dëkk bi Joseph Ndiolen moo yor seen kàddu guddi la ñuy ñëw ak seen machine di toj xeer yoo xam ne moom la ñuy wax keew xeer yu dëgër yoo xam ne sefos ñoo ko doon gas Sefos sànni woon na ko ba mu doon comme mbalit daanaka chinois yooyu nag ñëw ndekee soxla nañ ko pour defar ci ay caro ñëw def ak ñoom marché Sefos a nga ciy am ay milliards ñoom chinois di ci am ay milliards guddi nag la ñuy def liggéey bi 21 heures bu leen fi fekkoon ngeen dëgg machines yi commencé tërërër ñuy toj xeer yi di ko lay ci guddi gi ku mel na man boo génnee dem di tuuri ndox sa wanoog asamaan si dey lëndëm këris lëndëm boobu mi ngi nii feeñ na ci garab yi benn garab meññatu du mango du leneen garab yëpp deux pour cent la ñuy meññ léegi rax ci dool it nee nañu jamono yi dëkk bi kenn wératul te it produit yi fay génne ak poussière bi tax na seen jur yi ci bëri faatu nañ noonu ñu reyee garab yi noonu la ñu reyee jur gi jur gi ñax moom pi for muy ñax mu tooy muy ñax mu wow jur ga dañuy mujj di médd waaye feebaru dënn sëqat tuberculose a ngi fi yeneen jàngoro yi ñi ngi fi a pneumonie lépp ñi ngi ci sàkku nag pexe njiitu réew mi ak Birame Souleye Diop mi nga xamante moom mooy yor ministre des mines dañuy yëglu nag tey biram Souleye Diop yaa ngi may dégg doomu gox bi nga lam-lam ba nga nekkee fii Thiès ba bi nga yoree mairie bi umpale woo dara ci lam-lam. waa Goudia Diène ak dëkk-dëkkaan yi ko wër nee nañu am na sax foo xamante ne dañ fay indi ay mbalit ngir jóg ko fa di ab dépotoir waaye nee nañ loolu du ci dal. te duñ ci dellu ginnaaw RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ca Sendou euh, ña fa dëkkee ñooy yëglu ñoom it euh, ndax euh, lii di port yi bi ñu fa samp ca baax ñi Sendou ci it kilifay port ba ne dañoo bëgg beneen espace boo xamante ni dina am tolluwaayu ñaari téeméer ak juróom fukki mètre ngir doon dig-digalu kaaraange seen digg ak ñoom waa Sendou ñu gis ne nag dina ca am kër ku mooy wul yu nuy daaneel moo waral askanu doon yëglu démb amalab dox bu nu laal ci jàm ci seen kàddu askanu Sendou Mamadou Ndoye Sendou dama wax ne du fi jóg tey du fi jóg suba du fi jóg gannaaw suba ba ñuy rey rek mais dañu fi jóg ndax ñun fii la ñu am dëkk boo xam ne am na ñetti téeméeri at boobu dëkk du dëkk bu ndaw Sendou benn dëkk gënu ko ëpp histoire ñaar téeméer ak juróom fukk ñu jël loolu ay impact la ay ay kër la plus de 1000 maisons nga xamante ne bu ñu doon jóg dañuy am ay difficulté ay pêcheurs nekk fi loolu dañ si gënoon benn décret décret bi mooy sama confrère bi wax léegi en français ko defal ñu beneen décret bu wane ne décret bii moo fi bi mooy remplacer kayit ba amee laa bañ ka la ëpp doole la ko tegul mais terewul wax sunu ñaxtu ñoom mooy ne ñoom bi ñu koy toj laajuñu kenn poste de santé bi ñu amoon poste de santé bi ay riverains ñoo ko mayoon ay waa ASECNA génn ci xaalis bu bari ñu defar ko dañu xëy benn jour ñu toj ko ba tey Dame Diané ne répond pas aux populations école bi d'accord nañ ci commencé nañ ko nous voulons que les travaux soient achevés li dañu bëgg mu jeex liggéey ñu jeexal que xale yi am fu ñu jànge ndax maître bi il a toujours des problèmes ci njàngale mi bon war nañu noo taxaw ba xale yi am fa ñu jàng mën a dem mën a mën a ñëw njàng mi dafa sooxe emploi bi métti na tali baa ngi nii ba nu toogee ba hivernage bi jot dafa ñu ko duna am fa nu jaar bon nous demandons à l'appel monsieur Diomaye Faye mooy le président de tous les Sénégalais ñun waa Sendou nooy jooy ba fi ñëw na fi ñëw yow noonu ñëpp ku mën a dimbali tàllal nan la loxo pour que Sendou jot li mu moomoon mu nekkoon Mamadou Ndoye ci turu waa Sendou euh, ci micro Abdou Diouf Diagne ñu wutali bët euh, bët Saalum Sénégal ca Kafountine ak napp ma ci ak tolluwaay la fa ci Casamance la foofee nag ñu yëngu ci napp mi di mareyeur yi daal ñooy yëglu ñoom it dañoo gis ne daal seen ab liggéey te ca am ay opérateur intermédiaire yu ci dugal ak cooxe moo waral seen ak yëglu bu ñu sonn ak taxawu tukkee ci nguur gu Sénégal leeral yi Lamine Ba mareyeur yu bëri yi nga xam ne ñu ngi doon liggéeyee ci quai de pêche bu Kafountine jamono ji bàyyi nañ seen liggéey dem wuti leneen li ko waral nag mooy kees ñuy liggéeyee ngir quantité jën bi nga xam ne na ko am dafay faral di manqué Ibrahima Koli moom moo toogal UNAMS ci Kafountine. nous avons le problème crucial qui problème des caisses. am nañu jamono ji problème ak li nga xam ne moo di kees yi ndaxte xam ngeen ni mareyeur yi moom la ñu nattee ci li nga xam ne nag moo di njaay mi ñun ñëpp xam nañ ne kees bu normal cinquante kilos lay def waaye modifié nañ ko yàqati ko ba jamono ji kees bi bu feesee sax du am li nga xam ne juróom-ñeenti fukki kilo loolu nag dafa dem ba yàq li nga xam nag mu di activité mareyeur yi ndax ñu bëri dugg nañ ci nekkul ne mareyeur yi ñu am jafe-jafe bi tukki ci li nga xam nag mu di sabotage bi ñu ne mekku ci kees yi soxna yi nga xam ne nag ñu ngi yëngatu ci wàllu transformation jën bi ñoom it ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci wàllu woowulee Fatou Diatta moom mooy présidente des femmes transformatrices de Kafountine transformation bi tax na transformateur ak transformatrice yu bëre ñu ci ay bor tey ñeneen si dañooy daw ñi nga xam ne dekkuñu ci Kafountine dañuy daw bàyyi Kafountine ndax ay bor te xaalis bi lekkuñu ko de kees yi ñoo diigal xaalis boobu. jafe-jafe yooyu tax nag bureau national bu union national de mairies du Sénégal ñëw Kafountine ngir waxtaan ak acteurs yi ngir ñu mën am solution ci mbir mi ginnaaw bu ñu amalee seen ndaje nag am na résolution bu am solo bi nga ne yëkkati nañ ko jébbal ko kilifa yi Papa Ibrahima Diaw moo jiite UNAMS ku ko jëndati wala képp ku ñu gisati nga yor ay kees yi jàmbur su ko defee ñu jàppale état gunge ci ñu teg ci yoon ba liggéey boobu salte boobu nga xam ne ñu ngi koy liggéey bu mën a daj xam ne yaa ngi nekk liggéey jën yi ni nga xam ne noonu nga koy jaay ko kees jamono ji nag liggéey mareyeur ma tàmbali di jànkonte ay jafe-jafe yi tar nga xam nag mu di quai bu Kafountine na Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média ñu des njiital euh, mbootaayu marié ru Sénégal euh, Papa Ibrahima Diaw.

danañ a am fuñ nekk te duñ am benn problème nawet aussi mi ngi ñëw ku ne xam ne ne nawet ak taw te ku ne xam ne ne Kafountine presque nawet lay ëpp jën kon a a arrêté di liggéey te dañuy bàyyi ko bët euh, Saalum Sénégal wutali bët gànnaar ak euh, campagne euh, mbayum ceeb mi foofe ca Matam njaaxleeg ñu yëngu ci mbay mi sa sëngéem lool ndax ba tey ji daal amuñu ci lu leen leer ci misaal waa Sadel foofe jumtukaay yi sax ñeel wàllu mbay moto pomp yaak yeneen dañoo pànn Ali Bandel Ñang yuuxu wallu dëgg moo jibee ci làmmiñu baykat yi bokk ci dëkk bi di Sadel ñu jagleel ko njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci waxtu bi nga xamante ni ñu ngi dëgmal di wutali nawet gi askan wi nga xam ni mbay la ñuy dundee bu ñu moytuwul kat ñu bokk ci campagne nawet gi ñu dippee campagne agricole la. Sadel di ab dëkk bi fare ci Dandemaayo bi nekk ci biir commune bu Bokki Jawe seen fukk ak ñett moto pompe yi ñu amee woon ngir ko nandal seen tool ya yëpp a taxaw ne daa paan ay at a ngi nii bayuñu waaye bii nag moo gën a métti si ñoom ba waral ñu wooteem ndaje taskatu xabaar yi ca teqalu dex bi wane moto pompe yi paan di sàqu ndimbal jëmale ko ci président Diomaye Faye Samba moo yore seen kaddu masiŋaji ɗi eh, min jogui manan 12 périmètre hay goto hen alama ñaagui laamu ngargu kesugu yo wallu yimɓe walla ɗi li ko indi mooy sunu moto pompe yëpp paar ci biir bi am nañu fukk ñaari groupe moto pompe nga xam ne dox na te lu ëpp ñett dañu ñu jafe-jafe la bi ñu nekkee ba waral campagne bi ñu dëggoon sax ñun ci ñun yàgg nañoo fëgg suñu gémmiñ ah, di sàqu kilifa yi ngir ñu gestuñu saafara ñu problème bi waaye dafa mel ni dégguñu moo waral ñu ñaan njiitu réew mi président Diomaye Faye mu gestuñu sax dañ ñu yebal ay groupe moto pompe ngir ñu dem campagne. dana yokk production rizicole yi tax na ba kër gii di sayet estimé lu ñu fan mooy bañ ren ci wàllum ceeb ñu xayma ko ci lu ëpp juróom ñaari junni hectare di yop objectif bu war a mën a nekk waaye jafe-jafe wàllum irrigation maanaam groupe moto pompe yi pan te ñàkk lool ci diwaanu Dandemayo bi buñ ci teelul jóg objectif boobu kenn du ko atteindre mu nekkoon seen atango Ali bandeel ñaa fii ci diwaanu Matam pour RFM Ali Bandel doon waxtaanee mbéyam ceeb mi rawatina waa Sadel la ñu daal di ñëwaat ndakaaru waxtaane foire bi nu jagleel wàllug mbay meek lépp lu tukkee ci wàllug càmm gi muy FIARA Euh, deux mille vingt quatre vingt quatrième édition bi kon altine euh, fukki fan ak ñett ci weeru mai lay doon euh, altine tey jile la bonk juróomi waxtu ci ngoon ci CICES ministre bu bees bu ñu denk wàllu mbay mi ak wàllu wàllum napp mi moo koy kon jiite xew woowee monsieur le ministre Mabouba Diagne lu ëpp junni ci ay exposants ñu ngi leen di xaar ci boobu FIARA deux mille vingt quatre Ibrahima Diame ci leeral. lu ëpp junni ak ñaar fukki exposant bu bi beneew ñoo ngi koy xaarandi ci ñaar fukk ak ñeenteeli édition foire internationale bile ñuy duppe FIARA xew-xew bi nag ñoo ngi ko célébré ci thème bi ñuy duppe défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique Pape Abdou Fall moom mooy directeur maanaam njiital FIARA. FIARA 2024 mooy euh, vingt quatrième édition bi ren am nañu ñaari junni exposant ak ñaar ak ñeent mu ngi départ ci producteur bi transformateur bi ak ki nga xam ni moo yor encadrement bi banque yi ak euh, partenariat yi ONG entre autres ba ci consommateur bi donc ren am nañu comme ni ma ko waxee mille vingt quatre exposants à des degrés divers. ci biir événement bi nag daañu lancé beneen événement bu ñuy duppee siara loole nag ngir gën a yaatal partenariat yi gën a jox ndaje bi la gëddëm bu ñu sukkandikoo ci directeur bi ba tey. siara ren bi. dafa am benn particularité moom mooy siyaara donc foire bi dafa am benn salon ci biir salon bi mooy salon international de l' agriculture ak ressources animales pour permettre homme d'affaires yi nga xam ne ñu ngi jógee bitim réew te léegi jot amatul ñoom ñu ñëw ci trois wala ba quatre jours moo tax ñu tënk ko ci quatorze au dix pour permettre quand même que partenaires yooyu ak homme d'affaires yooyu exposants yi nga xam ni amuñu jot ñu ñëw ñu wutal leen benn cadre ñu ñëw présenté seen ay produits dajee ak ñoo xam ne soxla nañu leen. ci fàttali jëwriñ ji ñu dënk wàllu mbéy mi ak càmm gi moom moo koy ubbi ñu koy xaarandi bu 5 heures jotee ci 6S xew-xew bi nag doon occasion bu nga xamante ne ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu mbéy ak càmm te ji ci yëngu ñu mën a wone seen mënin ci secteur yooyu la. sport gi tey ñu ànd ak Pape Malick Diaw. mbokk yi di leen nuyu di leen dalal ak jàmm ci xibaaru tàggat yaram rajo Futur Média mu ñuy tàmbalee ak football championnat local surtout 23e journée bi match ba ca gënoon fës géejawaay la moo doon dalal Dakar Sacré-Cœur waaye nag ñoom crab yi comme ni ñu leen di wooyee ñii di waa Dakar Sac ñoo leen euh, fekk si bett leen daan leen ñeenti bal ci dara ci noonu mën nañu teelu seen entraîneur Assane Fall mi nga xam yoon ñu teewlu ko ci micro Idi Wan. bëriwul li ngay nga koy gagné ci équipe yi waaye bu ñëwee dañuy sant borom bu baax a baax dëgg la dañuy travailler sur le plan offensif mais comme ni ñuy wax rek ñun ak ñeneen équipe yi ñoo yenn saa yi dinañ liggéey ñoom lu ëpp sax ñun luñu liggéey te duñu am dara te bu ñëwee mu am dara dañuy sant borom bi te euh, voilà dugalay bi rek match yi moom yëpp la ñu yemaleen dañuy jéem a daal joxe suñu suñu mënin li li gën a baax si ñun te jéem a wane xale yi waaw moo moom moo ñu tax a taxaw daal gannaaw loolu entraîneur bi di Ansu Jaaju itam dellu si ci bile jogante gannaaw ba mu lajjee ci diggante Dakar Sacré-Cœur ñeenti bal ci dara ñu tegaloo ko itam ci micro Idi Wan. li ma mën a wax rek mooy tey dañu dañu passé à côté de suñu match bi. nuñ ko préparer woon comme ñun assuré nañu maintien bi dañu joué pour le prendre des risques am ay points. prendre risque boobu nag moo waral ñu jouer ak ñetti défenseur mettre l'offensif devant bi ñu ko defee pendant trente bonnes minutes trente cinq minutes quarante minutes doxul mais on s'est dit que c'est c'est foutu et c'est dans ces moments que adversaire bi profité am dara ñoo dugal ñaari bi ci presque trois minutes mais euh, liggéey bi des nañu continuer ci liggéey bi ñu gëm ni tey ñun ñoo passé à côté et que on doit travailler pour se rectifier. yeneen match yu wëyal vingt bi ñu jàpp ndam lii Linguère am ci kaw jàmbaar benn bal ci dara ak US Ouakam nga xam ni dafa dalaloon Gorée daan ko benn bal ci euh, dara itam ni ki lënd gi daañu wëyal li nga xam ni kon moom moo di 23e journée bi ci wàllum Ligue 1 ak yile ñaari jogante Génération Foot di dalal AS Pikine ca Stade Lat Dior bu Thiès naka noonu Jaraaf di fekki Stade de Mbour ca Stade Caroline Faye lay daal di amee ci wàllum Ligue 2 itam ñu ngi doon wëyal li nga xam ne moom moo di 23e journée bi rek ñu jàpp ci les résultats Amitié FC mi nga xam ne da doon dalal Thiès FC ñu daal di témboo ku ci nekk jugal benn but muy nul boo xam ne arrangé wul benn yoon Thiès FC rawatina seen entraîneur di Babacar fay waaye ci booru Amitié FC kii di Erol Malcock di entraîneur bi moom ñaxtu képp la amal ci digganteeg arbitre yi nga xam ne nii ñoom ñoo doxal bi lay jogante ñu jàpp ci itam témboo ji dox ci diggante ñaari tali ak Oslo 0-0 naka noonu ci diggante Ñambour ak Duc 0-0 itam ci wàllum niki lundi gi dañuy bër ba mardi ci la ñuy daal di tëjandi li nga xam ne moom moo di 23e journée bi ak bi lay jogante ca Stade Caroline Faye ci diggante Demba Diop FC ci diggante Demba Diop FC ak Agel bu Rufisque gannaaw loolu ñu àddu ci basket ak basketball Africa League bi nga xamee ne AS Douane daal dinay qualifié gannaaw ba matcham bu mujj bi mu amal ci seen digganteeg APR bu Rwanda daan ko 79 54 ci noonu yi ñu qualifié final 8 bi ñuy amal ci Rwanda ñu teelu ci seen entraîneur di Mamadou Gueye Paa bi ci micro Soda Thiam. kontaan si trop surtout euh, kontaan pour euh, peuple sénégalais bi kontaan pour bépp sénégalais bi nga xam ne mi ngi yeewoo fii ak fii ak bitim réew euh, ndaxte sonal nañ leen trop ndaxte dafa nekkoon benn boo xam ne en dents de scie tey ñu conférence de Sahara bi tam moom mu mel noonu euh, ñu joué tey jii tam benn match bi nga xam ne match bu bu amoon solo ba si même tey jii nii si suba sax euh, préparé woon nañu pratiquement euh, suñu ay vidéo lépp mais bi ñu ñëwee dañu waxante en tant que joueur les yeux dans les yeux xamal leen ne li ma leen di wax tey moom laa leen doon wax y cinq jours de cela chaque jour ma répété ko su fekkee ne pare nañ pour gagner mën nañ ko gagner su ngeen paree pour ma def vidéo bi tam mën nañ ko def su ngeen parewul pour ma def vidéo bi tamit mën nañu tëjaat ordinateur yi ngeen dem seen nekk parce que xam ngeen leen di xaar mën naa toog si si banc bi 40 minutes du ma jóg parce que coach bu joueur bu si nekk si yéen tey jii noon na xam na stratégie bu match bi lan la mental la am détermination bu bëree bëri bëri euh, xam ne suñu dëkk lañ fay jouer euh, amuñu droit à l'erreur. Mamadou Gueye paa bi ci qualification googee gannaaw bi ñu daanee APR bu Rwanda fàttali ni ñoom itam di Monastir bu Tunisie ak Rivers Hoopers bu Nigéria daal dinañu ànd qualifié ci li nga xam ne moom moo di final eight bi bu loolu weesoo des ba tey ci basketball bile des ba tey ci basketball Africa League bile ak li nga xam ni moom moo di président bile di Amadou Gallo mi amal waxtaan gu yaatu ak Soda Thiam ci li nga xam ni moom di bilangu zone Sahara ñu ànd ceeg moom. conférence Sahara bu Sénégal président Bassirou Diomaye Faye ak natango Rwanda di Paul Kagame président BAL bi nag di am mbégte ci seen teewaay teg ci it duñu xamal la muy xaar ci ñoom Amadou Gallo Fall. exprimer suñu contenté mais aussi ak beaucoup d'humilité di remercier ñaari njiitu réew yi parce que seen taxawaay fii dafay rek euh, firndeel loo xam ne ni ñoom aussi daf leen daf leen soxal parce que Afrique xam na ni suñu jeunesse moo nekk euh, atu bi gën a mag culture ak sport vraiment divertissement bi yëpp nekk na loo xam ni mun na créer emploi yu bëre ñaari njiitu réew yi nag ñoom comprendre nañu loolu euh, vraiment non seulement pour pour wax ak jeunesse bi pour euh, euh, safonteeg ñoom mais aussi soutenir environnement boo xam ne nii dafay wax ak langage jeune yi environnement boo xam ne nii dina créer ay emploi euh, pas seulement pour juste ay athlètes mais développer infrastructure yu mel ne Dakar Arena infrastructure yi du pour rek ñëw ay match basket mais lu rek mën nga ko fi def. patron bal bi nag daal dinay wax rek ni am na mbégte bu baax a it bilan bu positif lay tiré ci ñetti conférence yi. 2022 lañ njëkk a joué fii après ñu ñëw daaw 2023 chaque année dañ doon gis ay amélioration mais ren vraiment. vraiment c'est du top li ngay gis fii qualité bi mais ni ñu gisee progression bi si en termes de qualité jeu bi si terrain bi ak aussi nombre de spectateurs yi di yokk d'année en année que ren vraiment lu ñu gis nii c'est monde bi yëpp ñu ngi koy wax Afrique yëpp ñu ngi koy wax. ak lu ci mënti am moom moo di saison 4 BAL bile public sénégalais bi daal di nañu wuy si bu baax loole nag di ab message bu ñuy lancé autorité BAL bi ngir sax ñu mën a organiser final eight bi saison prochaine ne Rwanda mi daan dalal conférence yi lay mënees na wax itam ci làmb ak li nga xam ne moom moo di 24e édition drapeau chef de l'État Dakar daal dinay téye li nga xam ne moom moo di titre am gannaaw ba nga xamee ni ci compétition bi le par équipe moom moo daal di jël raw gàddu gi jiital ki nga xam ni moom moo di Fatick ci noonu ñii di waa Dakar kon dañuy daal di tegle li nga xam ni moom moo di titre boobu gannaaw 2002 ak 2023 ñu jeexal li nga xam ni moom moo di xibaaru tàggat yaram yi ak lii di final coupe du Sénégal ASFA moo daal di raw gàddu gi daane ci final jàmbaar mu jural ak mbégte bu baax seen entraîneur di Babacar Diatta moom mi jàpp ni titre bi lu ñu mérité képp la kon mbokk yi fi lañ ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi Pape Malick Diaw ngeen ci àndaloon bàyyi leen ngeen di wéy di safoo seen programme ci rajo Futurs Médias. Euh, ñu <laughs> ngeen baal ma maa ngi woon ci revue de presse bi Aliou Ba laata loolee dañuy ànd ak soxna Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu ngi ci waxtaayu fanweer ak ñaareeli édition festival international de jazz bu euh, Ndar comité d'organisation bi amoon na ci euh, ndaje ak taskatu xibaar yi ci édition deux mille vingt-quatre bi nag. organisateurs yi fas yéene am programmation bu am solo ak i euh, artistes yu jógee Sénégal waaye itam bitim réew ñu déglu ci njiital comité d'organisation bi Idriss Benjeloun ci euh, micro Ousseynou Diop ca Ndar ñun def nañu programmation bi ba mu sotti te ci biir programmation bi nii am nañu artistes yu bëri eh, ci ndimbalu yenn ambassades yi comme ambassade du Portugal ambassade d'Espagne euh, comme ci ndimbalu ambassade de France comme ci ndimbalu ambassade de Suisse d'Afrique du Sud am na ay artistes yu jóge ci réew yooyu ñoom daanu ñëw fekkee donc festival bi daañu ñëw jouer ci biir seenu i te ñun fi mu toll nii leer nañu ni rek ne événement bu toll nii ci dimension bii mu toll état du Sénégal du si des ginnaaw dinu ñëw fekk si dinu ñëw jàppale ci mbir mi def ko événement boo xam ne événement wu Sénégal la événement boo xam ni du seulement musique du culture mais événement boo xam ni mën na jël économie bi yóbbu ko fu sore. édition 2024 Saint-Louis bi jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai gi ñu nekk jàpp ñaar fukki fan ci weeru mais ca place Baya jamono yooyu am na benn projet bu am solo bu ñu daal di tàmbali fii ci euh, Ndakaaru behind the scenes mu di euh, projet boo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba euh, jigéen yi gën a gis seen bopp ci secteur de la culture ci biir Afrique mu di. initiative tukkee ci euh, l'AREM ak euh, ISAC fu ñu toll nii juróom-ñaari réew yu Afrique ñoo ci bokk dañ ciy déglu Ousmane fay nekk économiste euh, chercheur ca laboratoire d'analyse et de recherche économique et monétaire. dafa fekk ne ci secteur wu ñu tan xarala ak caala bu nekk secteur boo xamante ne bu am solo ci Afrique ci développement Afrique boo xamante ne day créer koom di créer liggéey te dafa mel ne ñi ñuy jiite dañ koo xaw a néewal dañ ko war a mën a xamuñu lépp da ca mat ba tax na ñun eh, gindi leen ci loolu ba tax ñu xoom ne ñun kat def ci mbel yi mooy miin baax na def ci infrastructure yi baax na wante bu ñu bëggee xale yi nekk fii am emploi bi ñu bëgg ci ñoom mu ne emploi boo xamante ne dañ ci am payoor goo xamante ne dañ ci mën a suturlu dans emploi décent ah, dañuy bàyyi xel caada gi ak xarala gi léegi caada gi xarala gi nag lu mën a indi koom la te lu indi koom la ci Afrique gis nañu artistes yu mag yoo xamante ni Euh, dañuy indi ko seen dëkk ku mel ne Youssou Ndour bu tukkee bu demee bu ñëw am na fi bàyyi mm. bu concert amee ci dëkk xale yi bari ciy liggéey ci bàyyi dooy ay emploi la ñu bàyyi ci xel léegi bu ñu ci bëree Afrique bëggee am lool nag day xam ne ñaari tànk la ñu war a doxee benn tànk mooy jigéen ñi mm. jigéen ñi dañuy dañoo xarala ci ko ci côté boobu. mbokk yi fi lañu ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha ci yeneen i xibaar ñal aada ci RFM. direction de la santé mère enfant ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen jëf retard gi am ci nomination yi ñu war a def mu ñeel cabinet ministériel yi mooy li journal enquête xëye mi ngi ñuy xamal ne def na weer ak lu teg bi ñu tegee gouvernement bu yees ci réew mi waaye ba léegi li ñu seetlu mooy ministère yu ca bari doxuñu dañoo taxaw ñu taxaw ci xët mu njëkk journal point actu mi xëy bind ci xët mu njëkk ne cadre républicain yi ak ñoo ngi sikki mu ngir ñu wax ñu war jël ngir wàññi njëgu dund gi mesures lay doon yoon yéenekaay bi boole kooki kàddu Moustapha Diakhaté yu mu yëkkati ci émission Grand Jury bu RFM bi ñu ko invité woon Moustapha Diakhaté nee projet bi gaa gëmloo askan wi ay tappale la ay njublang laa ki naxaate escroquerie la arnaque politique la arnaque électorale la ñi ñu tuddee les cadres républicains point actu nee nañu ñoo ngi fàttali gouvernement bi datu fukki fan juróom ci weeru mai ñu joxe woon ngir joxe mesures yi ñuy jël ngir wàññi njëgu dund gi Boubacar ñu ne ñaw xamoon nañu ko ñu xamee ci xët njëkk xibaar bu ñuy xamal ne waa Pastef ñoo ngi weddi seen bopp ci lu ñeel ni ñu war a doxalee ci rapport yi Cour de contrôle yi ci réew mi ni ko président Diomaye santaane woon léegi nag ñi ñu jàpp loxo ci poste ñu jalgati àll réew mi ñooñee fan la yu ñu gis ci kër Alioune Ndoye mu di ca mairie mi ngi ñuy xamal surfacturation gu toll ci ñaari milliards ak ñaar fukki millions ak juróom-benn ñu am ci travaux yi ñeel bël ba ca ndar fa jalgati ga wullee ñaay nag libération nee nañu mooy ca mairie bu Tambacounda ne maire ba fa ne woon gis nañu atelier bu mu doon organisé boo xam ne la mu def ca facture mooy participants yi ñëwoon ci atelier ba kenn ku nekk ci ñoom fukki kilo ceeb ak juróom ngay lekk lekk bés bi le jour xëy ñu rëq-rëq yu rapport yi feeñal ci ministère de la pêche chef de division pêche artisanale toog na ñaari at yu mu tegul tànkam ci réew mi te fu weer yu masaana dee mu jotub salaire bi dolli ci duñu wax ne waa cour des comptes interpellé nañu direction de la solde ngir ñu wax lan nan la mën a comprendre loolee xew ci ministère de la pêche coalition des acteurs de la pêche du Sénégal di CAP seen njiit Alioune Thiam moo nekk ci seen xeexu bopp Abdoulaye Dièye mi jiite woon AIBD ci boppam ay kàddoom ñoo nekk ci xët mu njëkk sumnaal point actu aéroport international Blaise Diagne gi mu jiite woon mu di AIBD Abdoulaye Dièye nee na bu tëddee dana nelaw ndax jàpp na ne la ko fa waroon def na ko sentiment du devoir accompli mu ne bokk na ci mise en exploitation yu aéroport bu Ndar ak bu Kédougou bokk na ci certification bu aéroport bu Cap bokk na ci ay projet ubbil journal bi benn waay moo jam paaka moroomam ndax ab xale bu jigéen bu ñu doon jamaale